ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci Musaa mi nekk marwata ak safa ak aqiyam di Musaa ndax yàlla naatal xarnu bi ak aqi mboole may rakam aqi seen baaya ñoom ak aqi Seex ya Bàmbaam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 uma maqaamam di la woo waaye murid yi ñooma woo ne tawatal te bunu woo saw la miñey woo xarnu bi tey jii ma wax ani tareet ngir yaa ma def antal pareet yaa fa bi xam-xam nii reet ci sama xol ci xarnu bi te bul ma tan lu ci ñaan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 te boot nu ngal la daam roggi nu mboolem xërnu wi bal sa doom yi yëpp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot nee na dem ba léegi moom Seydina ñoo nekk nee na di organisé nee na ñooñu mi ngi leen di sant nee na di baral cant nag taaliba yi nee ji nee ñoom ñoo ko jëf taaliba sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant cant xam ne moom mënu koo tudd nee na xam na ni nee def ngeen li ngeen mën nee def ngeen loo leen mënul nee na waaye nag waaye jëfal Serigne Touba moo toll noonu nee na lu waay def sa bopp rek nga ko defal kon nag Serigne bi na mi ngi santaat bu baax nee na ñi jàpp ci liggéey bi yëpp Serigne bi nee na sant na leen nee na yéen journaliste mi ngi leen di baral nuyoo nee na ndax. ngeen tegoo ci yëf yi mi ngi sant bu baax nee na guddi màggal gi nee na gis ngeen baas bii ñu mi ngi woo caddaakoon yëpp ñu sant sëriñ bi fii nee na guddi màggal gi nee na bu ko kenn wuute nañu teel a ñëw nañu gi tool yu rafet te neex tool yu rafet xëy ñu neex dafa a sant